bu baax. TMP seet si ma ànd mbay dollar chéri rek i torodo bi waaye ki mu àndal mooy xale yi osé xale yi féroce ki yaa gi ngay ñam beeg maar xaasim ak say na bu ki yaa lu xew. li xew papa leen dong la mooy sam papa Kéba daane namoon nañ ko waaye dafa ñoo raw loolu ñu naan dem na Bercy am demul Bercy mu ni déedéet damay togg bégal samay fans waaye fu ngi koy defee dimanche la mu ngi koy defee ba gaynde bëgg naa xale yi daanu si nag waa parcelle waa Médina waa Fass waa Pikine Patte d'Oie fépp fu waay nekk xale yu maris bëgg naa ngeen fulaale def zalone ñu sànneeku bëgg xiiru rek def yi fi gaynde bilaay waaw <laughs> xiiru def yi fi gaynde waaw def yi fi gaynde waaw c'est normal parce ñu ngi jëm gaynde mhm. te dégg ñaa ñu yaan ma yee gaynde waaw. waaw léegi bu góor baa ngi bu jigéen baa ngi. jeex na moo tax ñu def suñu noir yu baax bëgg naa nag xale yi ngeen génne ensemble yi nu mu gën a rafetee rek gën maa neex ndax sama papa Keba dafa takku ba mel ni naanaa ma ne takku naa gis nga ñu def suñu def nga ñu def suñu ñaari noir yu baax. naan baaxalee nañu waaj. non xale yaa indi woo. xale yi woo naa leen bis bi nag man ñii lañ ko tuddee man Guèye Ndiambé maar xaasim ak Seyna bu man kii yaa xale féroce dëgg du neex bëgg naa daal bu ko kenn uute. Mm. dimanche la fee ca gaynde xam ke baadu caaxaan. gis nga say góor. samay góor bëgg naa ngeen daal di daago si yéen ñëpp. samay papa samay nijaay samay doom samay xarit samay mbokk bu kenn wuute parce que dimanche lu mu nar a mel. waaw na woon fa woon ci kàttanu suñu borom di ñaan yàlla di al di wax nag wax dëgg yàlla dañuy dolli sonn parce que nag eh, dimanche dafa xaw a doy waar. Mm-hmm. jour la boo xam ne gars yi dañuy xëy lënd liggéey mais yàlla ñuy suturaal. Mm-hmm. yàlla ñuy suturaal fay ca gaynde ga di nuyu nag wax di yàlla ki nga xam ne moo géré ñuy wax Doudou Fall. Mm-hmm. muy garmi lool baax lool di baax di patron boo xam ne moom. kooku am dootoo ko bàyyi. bëgg naa xale góor yi ngeen reer seen reer ba mu saf daal di joxe seeni reer ba mu mat kat naka sama papa Keba waxee ñu daagu nànk rek dem la gaynde eh, nga tuddee aussi euh, Mor Sall Ngaari bàyyi Cheikhouna Bamino chéri Koddo déggal li bari ba tey Koddo nekk na mooy kee taxaw laqatu mooy Koddo eh, chéri Koddo bëgg naa nga daanu si nànk te bu ma bàyyal benn virgule fa nga jëm lii laa bëgg ah? Mor Sall Ngari. kon loolu neex na papa. ah mu yaay Aïda Sène. <laughs> kooku daaw de Sène ay maamam. Eh. ba mu neex. <laughs> wuy ma maa ne xolal lan ñu bàyyi ko foofu ba dimanche à suivre lay doon à ne pas ku ko tardé di nga tardé la kenn dul nettali. jeex